ma ci am réew dajale ay partenaire di doomu Touba Toul doon jóge ci di ñi Sénégal des na Dakar ñoom tey nga indi leen ko seen wàll xalaat bi ñu jógee salaamaaleykum sa bo sama bu ko ko ko waaw xalaat bi mu ngi jóge mu bëri information yi dafa bëri woon yi dafa li président bari ñëpp boo seetee ñu ngi dëkk ci monde moo tax ma yaakaar ne information yi dafa bëri Thiès biir Thiès ci dugg ñu ci biir en profondeur suñu doom yi ak suñu ñoom ñëpp ak suñu rakk yi dañuy yëg lan moo xam moo tax ma jël initiative bi ma ànd ko ak sama rakk sama doom Abdou Yamou Diouf mu doxal ko ak doxal bu rafet ak Gustave Amady jàpp ci ñu nekk ci dëkk bi yëpp ñëpp jàpp ci ñu ànd doxal ko doxal juróom-ñett ci lañ ñu tuwaat bi deux mille vingt et un bi dañuy gën a facilité pour yombal suñu te tey liñ ci gis ak ci mbooloo mel na ne nit ñi bëgg nañu am financement pour liggéeyal seen seen bopp léegi loolu ñu ngeen ko jàngate ak lu ngeen xore ñu ngeen leen a jungee waaw boo gisee mbooloo c'est vrai dugal nañ ci loolu ndax man ñu seede naa xam naa ci am na ñoo xam ne ñu si bëri fay amoon nañu fay nañu ba pare mais dañoo bëggaat am na ñoo xam ne amuñu woon daanu dañ léegi bii yoon dafa changé dañoo changé doxal parce que dañoo bañ ba dañoo wut parce que loo gis ñu di ko def il faut que mu am suivi évaluation ndax léegi balaa ñu leen jox xaalis li tax ñu woo waa waa waa DER ñu ñëw woo waa ANAMO ñu ñëw woo waa ANPEJ ñu ñëw loolu pour mu defal nit ñi formation bu ñu defalee nit ñi formation ba pare. buñ la joxee sa xaalis ba pare nag suivre la nga xam nan nga koy doxal loolu moom mooy. la président euh, nañ ko ndax loolu moo tax ñun ñu sóobu ci bi mu defee conseil bi mu ko tenir ci la daal di jóg dugg ci dëkk bi dugg ci àll bi mais nag il est temps que ñu jóg informé ndaw ndax ndaw ñi ñàkk a xam ndax président yàgg na accompagner ndaw ñi daal wante na ah bi yoon la raw nag. bi ñu ñëwee ndax ñu bëri xamuñu ci woon dara xam ñoo ne bii nag dañ koo bëgg a yaatal ku xamul woon ñu xamal la ba pare non seulement ñu xamal la mais woon la yoon wi ngay jaar ba nga xam ne amun a jot ci bénéficiaire yi ba pare encadré la woon la ni ngay def ba mën cee jariñ boobu ëllëgee